الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأعزنا به قوة وإيمانا وألف بين قلوبنا فجعلنا أحبة وإخوانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتابه هدى ورحمة وتبيانا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأعز به بعد الذلة وكثر به بعد القلة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له على الحق إخوانا وأعوانا أما بعد فاتقوا الله فاتقوا الله عباد الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم واشكروه على نعمه كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم وقابلوا نعمه بالشكر والعرفان يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان bokki ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala mi ñu teralee terang bu rëy ji di islaam mu di diin ak jàmm muy diine gi yàlla wax ni mooy diine gi wër ko ne inna diina inda allahi lislaam yàlla waxal ni fa man yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laxirati min alxaasirin lépp koo xamante ni jàpp nga beneen diine bu dul diine islam gi di diine jàmm soo ko de kenn du ko nangul lépp lu mën a def te yowmal qiyaamati ci ñuy perte lay bokk islam boobu mbokk yi dañuy santaate yàlla subhaanahu wa taala ci yëkkati gi mu yëkkati yenn ci jaamu yàlla yi dafa leen di teraanga waaye it dafa leen pas-pas bu rëy mooy ak imaan ci islam boobu la yàlla tamit def nit ñi bëggante soppante doon ay mbokk yoo xamante ni du rek ay mbokk yi deret waaye mbokk yi pas-pas ñu ngi seede ne yàlla moom amul kenn ku ñu war a jàmm ci dugg moom te ñeelul ñu koy bokkaale ak kenn moom yàlla subhanahu wa taala mi ñu wàcceel alquranul karim muy am njub di yërmande di di leeral lépp loo xamante ni jàmm bi soxla na ko lu mu war a dundee ci àdduna di koy jëriñ àdduna ak àllaaxira ñuy seede ne ci sangu muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la mooy ki yàlla yoon ngir muy gindi xeet bi di leen tegtal ci yoon bu ñu war a jaar ngir am njubug yàlla moom alayhi salaatu wasalaam la yàlla yoon ni mu fekkoon xeet bi ci réer bu métti waaye mu gindi leen yóbbu leen ci xam mu fekkoon it ñoo xamante ni ci suufe lañu woon waaye mu def ci seen xol yi ak ngëmu yàlla ak topp yàlla wane ni ñuy toppee yàlla ba ñu mujjee nekk ñoo xamante ni ñu tedd lañ ci islaam ñu nekkoon it mbooloo mu ndaw waaye moom alayhi salaatu wasalaam ànd ak ñoom ci dëgg ci pas-pas bu rafet bu sell ba yàlla def leen tey ci islam bi yegg fépp koo xamante ni adduna bi yegg na fa yàlla yàlla bi dësal na ci moom alayhi salaatu wasalaam moom ak i saxaabaam yi nga xamante ni ñu ngi àndoon ak moom ci dëkk ci ay mbokkoo boo xamante ni mbokkoo pas-pas la ak ci dimbalante seen i biir ñu dénk suñu bopp mbokk yi dinañ dénk ragal yàlla subhanahu wa taala mi ñu sàkk yàlla mi ñu sàkk nii te kenn ku ci nekk mu def la mu defal la lu mu defalul sa moroom kenn ku ci nekk kon soxlawoo li nekk ci sa moroom moo tax yàlla digle ni wa taawanu ala al birri wa taqwa na ngeen di dimbalante ci njëkk ak ragal yàlla wala taawanu ala al ismi wal udwan bu leen dimbalante mukk ci loo xamante ni day jur ay bàkkaar ba yegg ci jur ak noonu mbokk yi ci yàlla xeet bii ni xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla subhanahu wa taala moo ñu joxañ ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas mbokk yi loolu sharaf la teraanga boo xamante ni teraanga mënu koo féete kaw yàlla joxañ na ni yéen yéenee xeet bi gën ci xeet bu mu war ci kaw wàcceel ñu alayhi salatu wasalaam muy rasulu rahma muy yonente boo xamante ni yàlla moo ko yónni rahmatan lil alamin amul beneen yonent bi wàcc ginnaaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li waroon leer lépp leeral nañu li ñu waroon xam lépp xamal nañu te bi ñu bàyyi moom alayhi salatu wasalaam ñu ñuy xaar yawmal qiyaamati te ñaan boo xamante ni yonent yi seen ñaan ñan nañ ko ba nekkee ci kaw suuf moom alayhi salatu wasalaam nee na man sama ñaan dama koy dencal sama xeet ëllëg yawmal qiyaamati ci raw leen yàlla wàcceel ñu téere bi nga xamante ni mooy téere bi gën ci téere yi muy alquranul karim mbokk yi yàlla bu ñuy waxee ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yii ay firnde yu mat sëkk la yoo xamante ni lenn mënu koo féete kaw wante mbokk yi xayriya yi ana lan mooy tax ñu ni lii de wala yow mii de bokk nga ci xayriya mu ni ta'muruuna bil ma'ruf da ngeen di bokk ci ñuy digle ak njëkk wa tanhawna anil munkar ngeen bokk ci ñi nga xamante ne saa yu ñu gisee lu jaaduwul ñu wax ci ci anam goo xamante ni anam gu dal la gu tey ba loolu jàll bokk yi borom bi subhanahu wa taala yamul ci rek ñi ñuy ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar mu ne wante li nga xam ne mooy kislaay bi dëkk mooy wa tu'minuna billah foofu sa intérieur dafay sell rafet ba tax yow looy jël ne sa làmmiñ ne lu rafet lay doon ci tànk looy doxe loolu lu sell lu rafet lay doon mbokk yi umma googu noonu nga xamante ni moom lañ doon muy xeet bi gën ci xeet yàlla dafa bëgg ñu sàmm ko conserve ko kenn ku ci nekk ak nga rôle ngir nga bokk ci xayriya gi wala umma gi gën di sell loolu nag yàlla subhanahu wa taala dafa joxe ak ndigal mu ni wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu na ngeen mooyaanu ci muumu yàlla bi muy alquranul karim mooyaanu mooy nga jàpp jàpp boo xamante ni amul lenn lu lay tax a bàyyi nga jàpp li yàlla wax ni nañ ci moo yaan mooy alquran karim nee na wala tafarraqu da ngeen bañ di tàqalikoo lii bi ko borom bi subhanahu wa taala di wax boobu ci biir Madina li ñuy wax al aws wal xasraj ñun ñaari giir yi fa nekkoon ci xeex lañu nekkoon bay egg ci rayante ci seen biir yàlla yónni ci ñoom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu affronté na seen bàtt moo tax yàlla mu ni wadkuru nicmata allahi alaykum id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwana wa kuntum ala shifa xufratin min annaari fa anqadakum minha mbokk yi ñooñu tolloon muy al aws wal xasraj ci noonoo ba egg ci rayante yàlla yónni ci ñoom muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu benn la seen xol yi ñu ànd ci mbokkoo ci mbokkoo parce que bu dëgër ñooñu mbokk yi seen ixwaana eggoon na ci ni borom subhanahu wa taala wax ni ñoom de dem nañ ba liñ gis ci seen kanam ci ay ngëneel lu leen yàlla di tax ñu fàtte woon lépp lu leen féete woon ginnaaw teg bët loolu moo tax yàlla ne wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa dañoo dem ba ñoom kenn ku ci nekk la nga yor jàpp ni lii ci laa war a jaamu yàlla da nga koy joxe te doo xaar benn retour te la ngay joxe mooy la nga xamante ne mooy la nga gën a bëgg sa biir xol wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa yàlla mu ne nag ñooñu nga xamante ne eggoon nañ foofu ba demoon ba egg ci sing sing safara sing safara mooy bu ñu waxee teen buntu teen loolu mooy bind ku dem ba egg ci darayante eggoon nga foo xam ne boo defaatoo moom ci xam na ma ngay dégg yàlla mu ngi naan fa am xadafu min ha yàlla musal leen ci lan la leen musalee moom ñu topp ci ndigal yàlla subhanahu wa taala ak lii di jàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy kalimatu tawxid mbokk yi moo tax ba borom subhanahu wa taala di ñu xamal leen ni amul kenn ku nekk koo xamante ni sàkk naa la di natt ci ñi ma sàkk ni kii moo gën kii ndax da koo ëpp alal wala kii moo gën kii ndax kii fa mu juddoo bokk na ci ñun wala kii dafa xees kii ñuul moo tax mu gën wala kii dafa njool kii dafa gàtt moo tax mu gën yàlla mu ne gëleen si nekkul foofu inna akramakum inda allah atqaakum ki gën ci yéen ci man ci yàlla mooy ki nga xamante ni mooy ki gën a ragal yàlla mbokk yi alayhi salaatu wasalaam di ñu jàngal nag ana nan la ñu war a mën a def ngir booloo bennoo nekk benn mu ni masalul muminina fi tawaddihim wa taraxumihim wa taafufihim ka masali jasadi ida stafa minhu udwun tadaa lahu saira aljasadi bilsahri walxuna mu ni jullit ñi ci ni ñu war a nekkee benn booloo nekk benn dañoo war a mel ni comme jëmmi doomu aadama mu ni cër bu ciy metti rek yeneen cër yëpp dañuy ñëw fekk ci li nga xamante ne mooy metti ci beneen cër bi bu dee guddi bi duñ ko nelaw wala bu dee yaram buy tàngee yaram yëpp koy ànd tàng ba ku xool fii xam ne yaram bii dafa lompañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy wax xadis bi dafa pare mu mu misaal mu jël baaraam bi def ko nii rangale ko mu ne nii la julli ñu war a mën war ñoo bàyyi benn diggante boo xam ne ndox mi ci seen biir mbokk yi ci yàlla yàlla subhanahu wa taala mu ngi dénkaat ci alquran mu ngi yaa ayuha alladina amanu atiu allaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in فرده إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا yàlla nee na ay yéen ñi gëm na ngeen topp yàlla te topp yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàngale te ngeen topp it seeni kilifa ñi nga xamante ni ñoom la yàlla def ci seeni kanam ñu seeni kilifa yàlla nag ni wuute moom mun la ñàkk te naa jox wuute mun la ñàkk kii am xalaat bi kii am xalaat bi loolu mun la ñàkk waaye nee na bu loolu amee na ngeen jël lépp fa rudduhu ila allahi wa rasul delluwaat lañ ci delluwaay bi fi yàlla waxee ñu muy ci alquran ak jàngale yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi lii amee ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam nan lañ ko jàngale woon ñu ngi leen ko solutionné woon ndax amul lenn loo xamante ni ñëw na war a gaaral doomu aadama yi lu dul yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale na ko soog a def moo tax mu ni yàlla mu ni na ngeen delluwaat bu boobaa jàngale yi alquran ak sunne muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ñëwee ci xadisu awf ibnu malik radiallahu anhu ñu wax ni samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul xiyaru a'immatikum alladina tuhibbunakum تحبونهم وتحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم وتبغضونكم وتلعنهم ويلعنهم من سنة خمسين mooy ki gën mooy ki gën ci yéen mooy ñi nga xamante ni ñoom dañuy bëgg ñi leen jiite dañ leen di ëmbal ak cofeel waaye ñi ñi leen jiite it ñi ngi jiite ñi leen jiite tamit ëmbal cofeel ñi nga xamante ni ñoom lañ jiite ñi ñu jiite ba tey di ñaanal seeni dirigeant ndax masuul yàlla bu tege ci seen kaw naka noonu it moom muy ñaanal ñi nga xamante ni mooy ñi mu jiite waaye ki nga xamante ni nee na mooy ñi yées mooy ñi nga xamante ni dañuy moolu dañuy egg ci moolu ci ñi nga xamante ni mooy ñi leen jiite bañ leen ba egg ci di leen moolu waaye ñi ñu jiite ànd ñoom it di moolu ak di ñaawal si ñi nga xamante ni ñoom la ñu jiite xadis boobu muslim moo ko solo ba tey boo demee mbokk yi ci alquranul karim yàlla mu ngi misaal mu ni wal muminuuna wal muminaat baaduhum awliya baad mu ni way gëm yu góor ñi ak way yu jigéen ñi kenn ku ci nekk dafa war di dimbali moroomam ci ni ngay dimbale sa morom nag mooy da nga koy digal yamuruuna bil maaruf wa yanhawna anil munkar da nga koy digal lu baax waaye di ko tere lépp loo xam ne safaan la wa yuqimuuna sola jullit mbokk yi gëm-gëmam dëgg wala ñu koo seedal day fekk boobu ñu koy gis ci bërëbu jaamukaay yàlla yi rawatina jàkk yi ngeen di bokkandoo di julli ci jàkka yi wa yanhawna anil munkar wa yuqimuna salaa wa yu'tuuna zakaa ngeen di yëkkati ci wërsëg bi nga xamante ne moom leen yàlla wërsëgalee ngeen ci dimbali seen mbokku julli yi nga xamante ni ñoom dañoo tële wa yutiicuuna allaha wa rasulahu te ngeen di topp yàlla ak yonentam bi alayhi salaatu wa salaam yàlla mu ni ñi def lii ulaika sa yarhamuhum allah ñoon de yàlla dina leen yërëm yërmande yàlla mooy mu defal leen jàmm ci seen biir ngeen am sakin am ak dal inna allaha azizun hakim yàlla de buur bu tedd la waaye buur bu xarañ la ci li muy def aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي هدانا للإيمان وأكرمنا بالقرآن وغمرنا بالفضل والنعم والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الإسلام عصمة لمن تمسك به من الضلال والكفران والهوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين إلى الإنس والجن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk ñu ngi santal yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu dugal defal ñu suñu xol yii di lii di gëm yàlla mu teralee ñu it teranga bu rëy bii di alquran alkarim mu wëral lañu ay ngëneel yoo xamante ne kenn ku ci nekk mën nga cee jaar ngir ëllëg yàlla gërëm say jëf mu ànd ak rafetal ñu ngi seetal yàlla moom amul kenn ku ñu war a jaam ci dëgg dul moom te di seere ni suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki yàlla yéen muy rahmatan lil alamin ci nit ak jinne yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam boobu wittal ci taxaw mbokk yi yàlla mu ni inna hadihi ummatukum ummatan waxida wa ana rabbukum fa'budu xeet bii ngeen nekk muy xeet bu gën ci xeet bu mos a wàcc ne xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ummatan waxida kon yàlla ci bennoo la woote mu ne nag wa ana rabbukum fa'budun te man kese may seen borom ba yee jaamu jaamu leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey di ñu jàngal ci naka lañ war a def pour mën a bennoo ngir sàmm bennoo bi nga xamante ni moo nekk ci ñu mu ne laa taxaasadu wala taxa wala tanaajasu wala tabaaxadu wala tataabadu yi mu wax ni yëpp mu tàmbale ko xadis bi day jëme foo xamante ni ifshaal lay jur mooy tasaaroo mooy bu kenn di ñaane moroom loo xamante ni yàlla dina ko ci moom yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko ci jaamu kon nangul ne ko lool mu ni it bu kenn bañ kenn mu ni moom yàlla moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam wala tajaabahu ndax yooyu bu ci am rek mooy da ngeen a mujjee wanante ginnaaw te wanante ginnaaw buñ ko waxee rek mooy kenn ku ne jël na sa yoon boo ñëwee ci xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ci ñi nga xamante ni jamono ji mën nga jàpp ni lépp lu yàqu rek bokk na ci li ko yàq lii muy làmbi mu ni moom alayhi salatu wasalaam inna al abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah la yulqa laha baal yarfau llahu bihi darajat nee na nit ki dina wax kàddu goo xamante ni ba mu koy wax sax bàyyiwu ci xel waaye defar la ci jub bàyyiwul xel sax ci li mu doon def wante nakate kàddu ga defar na nee na ëllëg yàlla jël ko tàbbal ko aljana ci loolu mu doon wax mooy ne nit ki say jëf yëpp say wax yëpp luy defar ak luy bennal doomu aadama yi la war a doon mu ne naka noonu tamit wa inna al abda la yatakallamu bil kalim min saxati llah la yalqa laha baal yahdi biha fi jahannam nee na nit ki tamit dina wax kàddu goo xamante ni bàyyi ci xel sax li ñuy wax léegi mën na ko sax mbalage mu jur loo xamante ni ak yàqu lay nekk tasaare ay nit nee na kooku bu ñëwee ëllëg yawmal qiyaamat yàlla safara la koy la koy fayee yàlla ci yàlla musal moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ana naka nag ngay war a mën a def ngir mën a mucc mu ni ku bëgg a mucc daal li ngay def na nga téye sa làmmiñ bi te it nga gàtt tànk lool te nga bari looy jooy ci say ñaawteef yoo xamante ni yaa koy def kenn ku ci nekk yaa ngeeg ñaawteef yoo xamante ni bu ko kenn xamal la te yàlla mën na la ci àtte ëllëg dugal la biir safara wal iyaazu billah nee na boo toogee di xalaat ci yooyu di ci jooy kooku doo fa génn nag di wax lenn lu ñaaw wala sax ngay bëri looy génn ngir def lenn loo xamante ni mën na laa juri musiba yàlla mu ne wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna alsamaa wal basara wal fuaad kullun ulaika kaana anhu masula bu kenn di wax loo xamante ni wóoru la bu kenn di wax lu la wóor boo demee ba xam lu la wóor sax mu nekk lu yàq na ca maandu ndaxte inna sama lii di sa dégg wal basar ak sa gis wal fuaat ak sa gëm-gëm mooy sa li ngay yëg ndax sa ñaari kanaan yi muy sa gis ak sa dégg moo lay jox li ngay bëgg nee na loolu ay outils la yu la yàlla jox yoo xamante ni ëllëg yawmal qiyaamati yàlla dina la ko audité ndax yàlla moom al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun yàlla foog mu audité ci moom yàlla yàlla xiir ci wax lu baax di def lu baax te di dox ci lépp loo xamante ni luy bennale doomu aadama yi la loo xamante ni ëllëg yàlla mën na ci jaare jéggi ñu lépp luñ ko defoon ci safaan dugal ñu bi àddina lu fi si aala ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا الى صراطك السبيل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أقول ما تنعمون قوموا إلى صلاة يا الله